ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسوله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا, أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ۖ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ۖ ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ۖ وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ۖ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم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 mbokk julli di ñoo ngi leen ziar di leen baalu xaq di leen ko baal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jam ak tawfiq ak taysiir ci barke sayidina Muhammad te yàlla defal àdduna bi yépp jam ba jànkonte yi nga xamante ni bii ni moom lañ nekk yàlla teg ci loxoom saafara ko ci barke sayidina Muhammad di nuyu nag kilifa diine yépp di ko tàmbalee Tiwaawan ba Touba Njaasaan ak fépp ñu ngi leen nuyu rek ku ci ne ñu ngi lay wax sa wàccukaay di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu tamit ñi ci hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu seeni kër ci barke Seydina Muhammad di nuyu tamit ñi nga xamante ne bii ni caabi féeti na leen ginnaaw yàlla def caabi jooju féeti leen ginnaaw yal na ko teg ji dindi leen natt yi wala bon bon yi nga xamante ni bii nii moo leen yóbbu woon foofa yàlla teggi ko seeni xol fëgg ko seen biir dënn ba ku ci ne demaat sa biir kër nekkaat ci jàmm yaag sa njaboot ci barke Seydina Muhammad mbokki jullit yi nag tey nag ñu ngi tàmbaliwaat sunu waxtaanaat comme sunu sunu waxtaan bële ñu ngi nekkoon ci al ibaadatu jaam bi waaye tey dañuy waxtaan ci xikma bi nga xamante ni bii ni xarale bi yàlla xarale ba tax mu sàkk jinne ak nit ak tamit lan moo tax yàlla sàkk leen wàcc leen fii ci kaw suuf nga xam ni loola du hasard yàlla lu mu def rek noonu la li olof njaay naan yàlla lu mu def noonu la jaam bu ko xam noppalu yàlla li tax mu wàcc ni fii ci kaw suuf du ni dañ fee wàcce rek pour ñu bëlaw ni ko gaa yi waxe bëlaw loolu wàcce wuñ fi loolu taxul yàlla suñu borom wàcc ñu fi waaye li tax yàlla wàcc ñu fi mooy daf ñu coo daf ñu coo wàcc daf ñoo wàcc ci kaw suuf ba pare tegal teg ay xawaaniinam teg ay yoonam ni nangam ak nangam def leen ko nangam ak nangam ku ko def ëllëg lii moo say fay waaye nangam nangam ku ko def it ëllëg lii mooy sag fay bee nag ñu nekkoon ci al ibaadatu jaam bi tey nag ñu dugg ci xikmatu xuliqal jinn wal ins xikma bi yàlla ji am xarale gi yàlla am ba tax mu sàkk jinn ak nit tey ci loolu lañuy dugg mu ni lam yaxluqu lam yaxluqu llaahu athaqalayni yàlla sàkkul ñaari xeet yii nga xam ni mooy jinne ak nit mooy wal al jinnu jinne wal ins ak doomu aadama nit abasan ngir fo aw sudan walla caaxaan yàlla sàkkul doomu aadama ak jinne wàcce ko kaw suuf ngir fo ak caaxaan yàlla sàkku leen loolu waaye lu tax mu sàkk leen lam yaxluquhum sàkk na leen lam yaxluquhum sàkku sàkkuleen li yakulu ngir ñu lekk wa yashrabu ñu naan wayalhu ñu bànneexu wa yalaabu ñu fo wa yadxaku ñu reetaan wa yatamattaxu ñu bànneexu yii xeet taxul yàlla wàcc fi doomu aadama muy fo bi ci njëkk mooy lekk ak naan moom du fo sax waaye maanaam lu yàlla digle la waaye tamit bokk na ci li tax yàlla wàcc ñu fi nekkul bànneexu ak fo ak reetaanante ak euh, euh, wayetamattaxu ak bànneexu waaye li tax yàlla sàkk doomu aadama mooy انما خلقهم لتخ لتخ سونو بروم يالا ساكنو ربهم سونو بروم لامر عظيم ميرمو مك موتاخ يالا ساكنو موي وهو مم عباده الله جامو يالا وحده موم دون لا شريك له ديت بوكالي كم نيكو يالا واخي القران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله نك يالا لا يغفر داس جيغله an yushraka bihi ki ka bokkaale wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha waye nak dana jéggale lepp lu ko sob rek waye bokale sunu borom yalla mom du ko jéggale motax fi ñu dégg ni ni wa huwa mom ibadatullah jamu bi yalla bi la wahdahu mom dong la sharika lahu det bokale sunu borom yalla wa tarku ibadatu ma siwahu ak bàyyi jami ak yalla kese manam nit ñi nañ leen bàyyi ak sunu borom yalla parce que yalla bi mu tabaxé bi mu bi mu defaree suuf defar asamaan dafa amoon lum ci namm ba waxtaani ci woon ak malaaka yi boo demee ci suratul baqara yàlla nga fa naan wa id qaala rabbuka lil malaaikati inni jaailun fil ardi xalifa yàlla nee na damaa bëgg a wàcce ci kaw suuf xalifa boo xam ni moo mooy wutu foofu mooy inni jaailun fil ardi xalifa qaalu atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima malaaka yi ni ko boo boo loolu ngay bëgg xalaat di ko loolu ngay bëgg a def di ko wàcc ci kaw suuf boo ko defee ñooñu bu ñu wàccee ci kaw suuf tuur deret lañ fa nekke ak ak ak ak ak yàq suuf si mooy qaalu atajaalu fiha malaaka yee wax man yufsidu fiha ñoom day yàq rek wa yasfiku dima ak tuur deret kon nga xam ni yàlla bi mu programmé wàcc doomu aadama yi malaaka yi dañ cee tësanteeg moom dañ ko ni boo wàccee fii doomu aadama du fi nekk lu dul tuur deret ak yàq suuf si ba tey boo demee ci benn beneen aaye yàlla mu ngi wax wala tufsidu fil ardi ba'da islaahiha gannaaw bi ñu defaree suuf si ba pare bu leen ko yàqaat mooy wala tufsidu bu leen yàq fil ard ci kaw suuf baax baada islaahiha gannaaw ba ñu defaree suuf ba pare yéen doomu aadama yi bu leen yàq suuf si في الأرض تكوسو بعد إصلاحها جنة وبقسنو برم يالا دفره ودعوه نغن رغل ودعوه نغن ووت خوفا رغل وطمعا أخيف إن رحمة الله نك يرمنا يالا قريب أجدغل من المحسنين وي سللي وي رفتلي موتاخ في دنج في جلني كون نك يالا بيمو ساكي دومو ادمه واتي كو سي كاو سوف فتاخول lekk taxul naan taxul reetaan taxul bànneexu taxul waaye yàlla da koo wàcce da koo sàkk ci mbir mu rëy ba pare bëgg mu jaamu ko kenn dal ko moom dong du ko bokkale kenn waaye nag jaam yi tamit ñu bàyyi leen ak yàlla parce que yàlla mi sàkk nitam xam na ki mu sàkk mooy kan xam na li mu wàcce suuf mooy kan nit ku ne man man man mën na laa defal lu ne ba ba ba ba mu des muni la man naa laa yor à vie ba àddunay tukki loo bëgg loo bëgg rek man man naa ko yor ba àddunay tukki loolu kenn mënu ko kudul sunu borom yàlla moo tax mu wax ci aya ba ni wama min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha yàlla neen lépp lu ma sàkk muy weñ di melentaan di nit di doo kon ku wax nit rek wax ay melentaan kon ça veut dire que yow man nga sa bopp yàlla nag dafa man boppam tey dafa man boppam démb tey soog a ñëw boo li fi jaar lépp ci ay yonent te ku ci ne rek xeet wa nga demoon yàlla jox na leen lu ñu lekk ba keroog muy ëgg ci xeetu seydina muhammadu mujj wii nga war a xam ni kon yab yàlla la ragalit yab yàlla la moo tax yàlla mu min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha lépp lu ma sàkk man yàlla wërsëgam mu ngi sama loxo boo yaakaaree nag nit lay jox naax nga sa bopp nit koo ko jox la yàlla da koo jaarale ci moom waaye yàlla la ko jox kon nag mu wa taazimuhu ak màggal sunu borom yàlla wa takbiruhu ak réyal ko képp koo fi màggal sunu borom yàllaa ko gën a màgg képp koo fi réyal yàllaa ko gën a rëy foofu parce que yàlla li mu sàkk rek boo ci jàngee nga xamante ni bii ni yàlla keneen la ba nga juddoo ba léegi yaa ngi lekk yaa ngi naan joxoo ko benn dërëm fayoo ko dara te bala ngaa lekk ci bitig yi dangay dem jënd bala ngaa dem marché da yor xaalis boo duggee waa léegi war sëgale loolu yépp te joxoo ko dara yor tawam bii di ko taw gàncax gi meññ nga ciy lekk di ci naan kon moo ni wa taazimuhu nga màggal ko wa takbiruhu nga réyal ko wamtisaali awaamirihi ak misaalum li mu digle wajtinaabu nawaahiyahu ak bàyyi lim tere wal wuquufu ak taxaw inda xududillahi ci يوني يالله كما قال تعالى كما قال سبحانه كم نيكو يالله وخي تبير القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن من يالا ساكوما جن اك نيت الا ليعبدون لودول ني جامو كون nga xamni ay la la hadith li li li borom tere bi net li mu ngi beug ñew yalla ngoy beug feddali mooy li mu waxoon ni lam yaxluqu llahu thaqalayni al jinna wal ins abasan aw aw sudan dégg nga fii yàlla li mu wax nee na sàkkuma nit ak jinne mukk lu dul ñu jaamu ma maa uridu li ñu bëgg ñoom ci ñoom min ci xéewal man yàlla maa ko yor li ñu bëgg ci xéewal wërsëg man yàlla maa ko yor wa maa uridu an yut'imun li ñu bëgg tamit ci leen leen ci ñam man yàlla maa ko yor kon ba tey wax ji ma doon wax mu ngi bëgg a ñëw la nga denc ca banque ba moomoo ko yàllaa ko la ko jox waaye yàlla ba mu la koy jox yàlla bu la joxee dix milliards du pour yow yaa ko moom moomoo ko danga koo war a séddale parce que dix milliards vingt personnes mën nañ cee dund ba keroog ñuy dee heure bu ñu xëyee di dépassé cinquante mille kon nga xam ne lii yow moomoo ko yàlla dala koo jox pour nga séddale waaye boo ko dencee ca banque ba moo tax mun li maa uridu li ñu bëgg minhum ci ñoom mir risqin ci wërsëg mooy la nga denc banque ba muy soxna yu oto yi kër yi lépp yàlla nee na wërsëgoo man yàlla maa la ko jox yow yaa ko bëgg ma jox la ko wa maa uridu tamit maa la li nga bëgg an yutaimuuna muy lekk ak naan man yàlla maa la ko jox inna allaha naka yàlla huwa moom ar razaqu mooy mooy maanaam moo yor wërsëg yépp moo yor xéewal lekk dul quwwatil matin borom doole ji nga xamante ni ba faw mooy nekk aaye juróom fukk ak juróom ñett ca zaariyaat juróom fukk ak juróom benn ca zaariyaat ba ca juróom fukk ak juróom ñett ma nga ca sóoratu zaariyaat mu ni nag fa ida faalu dalika boo jëfee loolu yépp saadu texe nga fi duniyaa ci àdduna wa faasa gañe nga bil jannati te àjjana borom téere bi nee lii lépp bu fekkente ni bi ni yow jullit bi taxaw nga ci def ko comme ni ko sunu borom yàlla diglee parce que yàlla am na aaya bu muy wax ca biir alquran ni inna alladina yuxadduuna allaha wa rasulah kubitu kama kubita alladina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayinat wa lilkafirina adabun alim inna alladina yuxadduuna allaha wa rasulah kubitu kama kubita alladina min qablihim kubitu bindal nañ leen kama kubita alladina min qablihim comme niñ ko binda woon ña leen jiitu woon وقد أنزلنا من يلا مواتي آياتنا آية بينات يلير نان وللكافرين نك يفري عذاب أمبغل أليم بطر موتاخ في فإذا فعلوا ذلك بو جفه لول ييب نك سعدو في الدنيا تي ادنا وفاز بالجنة تي اجنا لا والقرب من ربهم يوم القيامة بو يوم القيامة ديغا جيغك بوم كما وعدهم كوم نيكو يالا ديغلي digal leen dig boobu nga xamante ni bii ni ku topp yàlla topp sayidina Muhammad waaye nag topp ñu baax ñi nga xamante ne bii ni ñoo toppanti ginnaaw sayidina Muhammad di ko roy comme ni ko yàlla waxee ci alxuraan parce que loo gis am na toppuwaay ñu baax ñi dañoo topp yonent bi yonent bi ko digal yàlla yàllaa ko ni wa ma aataakum rasulu faxuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqaab moo tax mu ni fa ida faalu dalika saadu fi dunya وفاز بالجنة والقرب من ربهم والقرب من ربهم يوم القيامة كما وعدهم بقوله صلى الله بقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر دنجلول إن المتقين نكني رجل يلا في جنات كي أجر يلير ونهر أجدخي أجدنا يوم تسوف قد يخلي دول متقيني في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق تبغو بيالا بودغوا مليك عند نك نفا مليك ابور نان لن خولات فيني تك سون تانك جامونو سانزنا واي القران سانزول واخو يونتبي سانزول واغو مخنو باغ ني سانزول لب موغي تيغو تي يون بليغي lima len faral di wax rek alquran ak sunna ak tawhid ak lo meuna gis rek day depp ak jamono day and ak jamono sa bu actualité ñewé rek alquran ak ca wetam di ko kon nak nañ xolaat fiñuy tek sun tank di ñaan yalla yalla na yalla def ci réew mi jam yalla feebar bi nekk ci aduna bi yalla nako sunu borom yalla tegg ci barke Muhammad di nuyu nak sama falu seigne fallu diko ñaanal yalla gudd fa nak wër waye nak lu di njaag njaagay njaag njaag ñewna ñu ngi ziaré njaag diko ndokkel diko ñaanal yalla gudd fa rek wër di ñaan bi yalla nako yalla solal jox ko xar mu baax ci barke sayidina Muhammad muy kan sama président sek ndanan ñu koy ziar baax ak sunu DJ ñu koy ziar bu baax diko ñaanal yalla euh lampe prestige diko ñaanal yalla yok bo ci barke sayidina Muhammad waye tamit di ñaanal prestige gep diko ko ci sunu président pap Doumbia di ñaan yalla kees ca kanam yalla len yalla defal jam yalla defal tele bi yep di tambale ci Modou Aïssa papa pa malik Diouf soxna madam jaxate ak ki ma defal ma rafet madam Omar Ndiaye ñu ngi leen di gérawaat télé bi yep di ñaan yalla yalla ñu yalla defal jam waye nak di nuy nak sama xarit sama soppe muy serigne Mansour borom daara ji ak soxnam soxna Daba Fay ak gooram bay ak sama cheikh yi Asan ak Ousseynou yalla na leen defal jam ci barke sayidina Muhammad di nuy sama yaay bop soxna Nogoy Njaay ñu koy wax Màggat Njaay sama yaay di ñaan yàlla nag àdduna bi yal na fi yàlla sotti jàmm ci barke Seydina Muhammad waaye nag di nuyu waa Fass ture nga xam ne lu ji njaag ñooy njaag di ko tàmbalee ci sama sëriñ Abdul Aziz Touré waaw ibnu Muhammadul Haadi Touré ca Fass Touré yal na yàlla yokk ay leeram yàlla bàyyi ko ci kanamu société bi ba ca kanam kanam parce que doyluñ ci moom Wow, lima may faral di wax rek lu ji njàng mooy njàng parce que lépp lu ma toog ci télé bi di ko jàng maa ma koy wax ca foofu laa ko jàng dëkk sëriñ Aadi Touré ba ka nga xamante ni bii ni moo daan wax ak pitax yi naan déglu naa bii ci njël ay pitax ci garab tawat abli ci ko këf mi pitax naa ko ndax maru tarwaa ko rey mi pitax naa ko man xaaju maa wóolu maf mi di way mi di jooy kurkutu kurkutu boo amul fatxu boo amul dégg-dégg doo ca xam aw xaraf seeni way moo yang tiisu xol wi ci man moo taxit maa ngi nii maa ngi saf dof maa ngi leen naa xanaa yéen doo ngi nen nelaw yippi tax ñu ngi naan jooju wax nan ko laf nun danoo siib nelaw kuy nelaw doonu saf kuy nelaw sax say bët du raf kon nag ñu ngi ziyaare waa Fass Touré yépp di leen may waxu sëriñ aadi bii nga xamante ne bii ni seen maam ko waxoon seen maam nag moo jàngal Abdul Aziz Dabakh Malik si buti Tiwaawan géej ga géej kooku géej la ki ko jàngal kon lu mu war a doon kon nag ñu ngi sëriñ sépp di ñaanal jàmm di ñaanal sama sama mag alxaaji malik Mbaye nekk Nasru yal na ko yàlla may jàmm waaw yal na yàlla féexal yaram yi mook soxnaam Faama Gueye ak Ndeye ak Amadou Mbaye ab këpp képp ku mbaay rek ak Ndong ak Jóob ak lu mu mën doom rek ñu ngi lay may émission bi ci barke Seydina Muhammad kon jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran aquli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidaykum wa lisaa'iril muslimin jërë ngeen jëf